pour dissoudre assemblée mais dañ ko teg ci ay règles par exemple il faut deux ans assemblée bi am ko pour moom mën ko def assemblée bi aussi am na ay instruments comme euh, nu mu tudd motion de censure jëmale ko ci gouvernement <coughs> gouvernement bi et vice versa naa li ñuy wax xam nga man j'aime pas les sous-entendus man moom ci digg bi rek dès le début lañ commencé ni débat boobu ay Sonko lii jamaay fii xam nga le vrai débat c'est quoi c'est-à-dire avant sax ñu muy def gouvernement bi y a des gens qui disaient oui il faut ñu écarter Sonko il faut Sonko écarter wu il faut mu dem toog Ziguinchor il faut pas qu'il fasse de l'ombre mais attendez pour man dans ma conception ñoom ñaar caaki rek soow la boole naan wala boole tuur amul leneen hmm. bu ñu eggee parce que Sonko am na le génie politique ci laa doon toog ci télé bi maanaam kuy teggi kuy tëroo ko mën kuy tëru kuy teggee ko mën donc mu nekk son génie politique aussi beneen bi générosité ñeneen ñëpp lu tax ñu laaj parce qu'ils n'ont pas été généreux su dul man du kenn au PDS si Karim Wade en 2019 avait dit si c'est pas moi ñu ne ko Madické mu ne si serait Madické heure bi il n'en serait pas là question de générosité kon pour man y' a pas une personne boo xamante ni mooy presque le géniteur du du du projet. wala en termes de combativité ak lim ci daaj pour man il y' a pas une personne qui serait dans l' esprit même de de ce projet de ce combat. donc euh, pour man ils vont de pair. donc euh, c' est un duo il faut laisser le duo mu doxal. est-ce que dañu ciy bëgg a dugal mu nekk un duel je parle français. donc pour man conception boobu lañ lañ am donc là on a en prémisse pas, pas fort man j'aime pas parler de terme l'homme fort parce que yàlla rek moo fort ah man mm. gëw maay homme fort. mais quand on parle quand même de renforcement de pouvoir de quelqu'un ça veut dire qu'on lui rend tout euh, dañu koy permettre mu gën a am. Euh, dayo bi c'est ça. Oui, mais même ci jargon juridique bi sax on parle d'homme fort. voilà c'est ça. aussi waaw waaw man xam nga mais sa jargon yow man sama jargon boobu kenn moo fort. Mm. yàlla rek a fort ci man kenn fortul sama kanam. je parle pas d'homme fort. Mm. parce que pour man om yëpp a yem. homme la rek. du dëgg lu fi jaay jàpp ni da ngaa fort malaakal moo tey la gën a fort. li ma bëgg a wax mooy. mais est-ce que boo yóbbee foofu débat bi tam nag Cheikh Oumar nag di vraiment boo yóbbee foofu a dugg sama ah, la bàyyi man man la man Cheikh Oumar. du c'est que nag da ngay taxaw. Ah, non mais ko foofu rek li ma wax ci weeru koor laa nekk man laa wax ci sama kàddu ak sama kàllaama. Hmm. man damay bañ baatu homme fort. Ah. man Cheikh Oumar. même ci langage mbedd sax da ngay romb mu ne la ay eh, l'homme fort affaire yooyu man bu ma déggee sax nga jël fort nga teg ko ci nit man damay tiit parce que pour man yàlla rek a fort te loolu laa jàpp et fortu yàlla gi sax yàlla war ne ko jomaay nii biñ koy dugal ci kaso xamal ni day doon candidat ah noo xam ko ku ko waxoon ni mooy nekk président mu ne la déet kon ki fort te yore nguur te di ko joxe kookoo fort ki mën a jël élection rek la ma ci biir weeru koor ci 15 jours mu rek la affaire kooku rek a foor man keneen foorul sa bët. loolu question de man sama non parce que ñoom ñoo ma pousse foofu li ma la bëgg a wax soxna si mooy débat bi man du ma nekk ci ay sous-entendu le le vrai débat Ousmane Sonko ak poids bi mu am ak Karim bi mu am ak leadership bi mu am c'est pas le poste qui fait la personne c'est la personne qui fait le poste mën nañ la jox poste doo ci impacté tous ñu jox la ab sagaru poste sax nga jox poste bi contenu jox ko forme ci ni nga koy doxalee du dëgg maintenant on fait le constat Sénégal dañu am hyper présidentialisme maintenant est ce que dañuy futti président bi ba dañuy am président boo xam ne moom nañ ko fi teg rek comme décoration non les Sénégalais ont vote pour un président je crois que ak lu mën a am la subordination elle est là le premier ministre daa ñëw ne il réitère son engagement et sa loyauté au président de la république n'est-ce pas remercier le président de l'avoir nommé. tey bu ñuy dugg kon jox na ko cëram wala jox ko cëram du dëgg. bu ñu dugg pale sax tey waa ji moo ne ci gànnaaw. jeex na donc pour man coolu lu muy bëri bëri bëri bëri leer na ci bopp ñëpp ni président Bassirou Diomaye Faye muy président de la république du Sénégal il nomme aux emplois civils et militaires Ousmane Sonko mooy premier ministre man mënaguma ñëw ci loo xamante ni gisaguma fuñ ko tëggee ak tëggin bi parce que man li may xaar je suis parfaitement d'accord ak yow euh, il faut ñu am ay ay réformes yu profonde xam nga fii dañ fi defoon na euh, sunu maam Amadou Makhtar Mbow maa ngi koy ñaan yàlla yàlla may gudd fan je l'avais dit euh, ñu jox ko CNR yi commission nationale de réforme des institutions li jóge woon ci assise nationale la ñu xëltu ak la ñu gëstu ah ñu ñëw teg ko mu teg ko ci taabul président de la République jël ko def ko ci ci tiroir yi kenn mus ko appliqué donc pour man euh, war nañu am ay institution de telle sorte que institution yi ñooy ëpp dayo ñooy gën a taxaw que ñi wooy am fort pour man dañu war a am institution yu forte yoo xamante ni dafay crédible lu doy ba nga xamante ni ëllëg ci biir euh, nit du fi toog di wëlbati ay loi wala nit di fi toog. teggi ab gis teg gis bu la neex wala nit di fi toog naan dossier bi man maa ko teg sur le coup. je crois que war nañu gën a renforcer parce que si crise politique yi ñu génn wane na ay faiblesse yi nga xamante ni am na ci suñu ay institution wane ni am nañ yenn faiblesse yi mais terewul am na institution yoo xamante ni taxaw nañ te continuer jouer seen rôle toog nañ fii ñun ñëpp ŋaañu nañ fi conseil constitutionnel ou pas. Mm-hmm. mais terewul am na ci benn instant boo xam ne joué na rôle am. d'accord. joué na benn rôle am dox na ko maintenant euh, am na yenn débat sax en le posant sax c'est comme si bu yàggee sax ñu futti président bi dafa mel ni dañ naan président. actuellement je pense que ne ci sens boobu la ñu jëm avec euh, tout ce qui a été dit euh, sur les réformes génne loxoom ci euh, exécutif séparation des pouvoirs génne loxoom fu nekk ci fi nga xamante ne peut-être que foofu dafa amoon li leen di dogal peut-être loolu bu ñu si demee ci lépp dinañu gis président boo xamante ne dafay toog croiser le bras am di seetaan. di ah non non je je ne suis pas je mhm. ne suis ne pas le Bassirou Diomaye ak Sonko tous les candidats ici ont parlé de réforme du système judiciaire de réforme du système judiciaire le procureur de la République c'est comme un demi-dieu il dépend du ministre de la justice le ministre de la justice dépend d'un président moo tax ñu wax les sur sur les bons vouloirs loolu ça ne concerne tout le monde c'est un débat qui se pose mooy président est-ce que war na nekk si au conseil de la magistrature wala dañ ko fa war wala wala su fa nekkee lan mooy doon. lan mooy doon magistrat yi parce que le plus souvent ce sont les magistrats qui proposent. oui mais il faut que ñu bàyyi xel aussi tam ci loolu c'est très important. donc lii donc ce débat c'est toujours posé. voilà c'est pas un débat qui vient aujourd'hui mm-hmm. Bougane en avait parlé sur son programme. Oui. les autres en ont parlé sur leur programme. Mm-hmm. donc pour man man bëgguma mu nekk luy ñuy individualiser. parce qu'on doit se battre. pour le Sénégal de demain. Mm-hmm. pour que sunu démocratie bii nga xamante ni pas à pas la. ay conquête la ay mbir yi ba nit ñi taxaw ba egg fii ku yokkul dangaa ngaa wàññi ñoom bu ñu ñëwee lépp loo xamante ni digge nañ ko wala bokk na si li nga xamante ni mooy mbëbëtu sénégalais ñu dox ko parce que am na ñeneen ñu lay jox argument ne la est-ce que dañuy am euh, euh, régime des magistrats ou les magistrats dañ leen di bàyyi ñoom kese mais pour ñun la mais de l'exécutif et la toujours été là quand tu n'es pas mais attends ñaata opposant lañ fi te ci kaso bi parce que ànd ñoo président wala ànd ñoo majorité présidentielle il faut que ça s'arrête donc pour man c'est pas un, c'est pas un truc de deux personnes ou de, de Sonko ou de Diomaye c'est une question de principe démocratique où les Sénégalais ont ses pour avoir une justice indépendante madame est-ce que notre justice ci année yi elle a été indépendante ça Sénégalais bu nekk bu la neexee nga toog nga nga ne est-ce que suñu justice bi est-ce qu'elle a est-ce que notre justice a été indépendante démb rek benn booy bi ma doon waxtaanal dañ leen jàpp ba pare di wut ay preuve jàpp nit ba pare dem wut butéelu essence pour doo ko téye ñu téye ñoo ci kaso bi ñu génnee ay nit ci kaso bi comme si de rien n'était est-ce que est-ce que justice boobu lañ soxla est-ce am ndey ku ma ndey lañ soxla est-ce que justice bi ñu soxla mooy procureur bi moom bu ko neexee mu ne la coppet ne la pëy ci kaso bi ñu ne la mandat dépôt instruction six mois un an kenn du la